pour que les engagements yi nga xam si dans le cadre de la fermeture du canal à ciel ouvert dans le cadre même de l'élargissement de cette nationale solo si li nga xam ne ne war nañ ko mën a def ndax nag Tëngéej ku ko bëgg a wane xar-xar bu rafet rus fi ñu taxaw nii préfet a pris une décision pour lancer désencombrement fii waratuñu am une action de désencombrement dañu war a un plan de désencombrement départemental sous la supervision du préfet du département Il faut que nous a toll su ko defee nag li nga que état comme bras armé nous UCG avons une technicité Nous ñu aussi les moyens des collectivités territoriales parce que notre budget yi avons signé citoyens ñu delloo ko citoyen yi liñ si soxla ñu fekk leen si seen dëkk àndax ñoom pour liggéey nag quartier yi ni ko président ODCAV waxee ay see dugal seen loxo jigéen ñi dugal seen loxo ndaxte nag fépp daan lañ ko def suñu delloo da euh, suñuy maam yi dañ daan bale di tan loolu lañ daan def kenn daanul def li mais pourquoi red léegi nag ñu bañ def loolu nañu dellu cosaan ndax cosaan nag moo doxal réew mi doxal tëngéej moy doxal Sénégal monsieur le préfet man lool la amone lu may dénkaane wane nak nag suñ si jógee buñ ko def nak pagné buñu ñuy ni ko maire bi wax nañu déllu wat suñu koñ déllu wat suñu buntu kër bale ba mu set à compter d'aujourd'hui su préfet génnee plan am ñun collectivité territoriale ku nek appliquer ko à travers nak quartier yi nga xamné ñom nga concerné je vous remercie